mbokk yi lu jege fukki at ci at yii di ñëw màggal Tuuba ci biir nawet lay nekk nii mbedd Tuuba yi mel ci ay taataa nii tali yi mel ci ay yàqu-yàqu nii Tuuba amee jafe-jafe ndox mu ñu naan mbokk yi jamono yi ñuy wax ak yéen am na sunu mbokk taalibe yoo xam ne génn nañ seeni kër ngir ndox mu bari te xamuñu fenn fu ñu jëm lii nag képp kuy murit am nga ci part de responsabilité moo xam nga nekk fii ci biir réew mi moo xam nga nekk bitim réew mbokk yi dëkk bii di Touba ñun taalibe yi rek ñoo ko mën a defaral suñu bopp kon nag nañu takkatoo ci Touba ca kanam ci weeru safar wii mur bu nekk moo xam na ngay màggal si moo xam màggal si woo nga fexe sa ñaar téeméer tabbi ci biir tubaa ca kanam foo ko mën a jaaral nag baax na moo xam nga am Orange Money nga am Wave nga am Free Money nga am Wizall Money wala bloc yi nga xam ne am na ñu ko yor di wër ngeen dagg seen ñaar téeméer ba ci mbootaay yi association yi ñi nga xam ne organisé wu nañ bokk ci tubaa ca kanam ku ca bokk nga dem nga dagg sa ñaar téeméeru safar ba ci banque yi ak application bu bees bi nga xam ne Touba ca lancé na ko. yéen ñëpp ngeen téléchargé ko ngir mën ci jaarale seen addiya mu gën a yomb. wakkitu lil amdaay wal lii nag mbokk yi bu ñu ko defee jafe-jafe yii di ñëw ci sunu kanam ñu gëm ni ñun ñoo ko mën a saafaraal sunu bopp niñ koy saafaraa nag yomb na. wax nañu ne màggalu tuubaa lu tollook ñeenti millions yi nit dana ñëw màggal si te kenn ku ci nekk su joxe ñaar téeméer ci Touba ci kanam loolu rek ñeenti milliards kon nag képp kuy ñëw. da nga def farta da ngaa war a bokk ci ñuy joxe ci ñeenti milliards yooyu suñ ko defee weer wu jot nga kóon ne du joxe ci Touba ca kanam yaakaar naa ne fi ak at yu néew lépp loo xam ne lu suñ Touba ñaanoon ci dëkk boobu yow di nga bokk ci ñuy gëtandu lool